lu muy luxus bu jeexee rek jeex na billaay yow mais gis nga ah fii mooy yëmbal rek si nga yëmbal mais yëmbal daa benn sit bu tudd caare kaw ci biir amoon na fii mooy caare kaw quoi mais noonu lay demee nag bëgg naa lu baax a baax di sant gaa yëpp di sant suñu monsieur le maire Bara Gaye ah waaw di sant tamit Amadou Hott suñu ministre bu ñaawul boobu kenn moom ak madame Hott di sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm gaa yi nii ah café gi moo nekk nii gaa yi si café gi ah. waaw ñu ngi bu la neexee ah, may jegaan ah waaw bu la neexee jox ko moom mu wax dan lay laaj loo xam ci bébé diwaan ah xam nga palmarès am ak combat na lay dundee ci koñ bi quoi waaw yow daal ñu ngi lay jox kàddu gi. waa salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay waa di sànni quelques kàddu rek sama diggante ak sama copain quoi bébé diwaan. nekk na si koñ bi boo xam ne social lañ ko xamee tout ça ñun ñu dëkk caare ko yëpp xam nañ ko xamee nañ ko social ak def lu baax ak wax lu baax yoonam nekkul ci kenn mooy loolu liggéey lañ xam des fois mën nañ toog ay jours sax duñ ko gis boo laajee anamu dem na liggéey mooy loolu des mu romb fii nii waa yaa gën a xam jënd ay xéwal quoi ñëw yaatal ko fii gars yi Baye Fall ñu ñëpp ñu yaatal franchement parler te du lu bees moom te ko caméra bi taxul ma koy wax wala lu ñu ko woo mu wuy suñu ñun tamit munuñu lu dul fuñ ko fekk fu lu mu xewle ñu dem topp ko quoi mooy loolu. parce que moom moom mooy suñu champion franchement parler yëmbal moom la am amuñu lu ko sut rawatina caaree kaw gii ñu nekk caaree kaw mooy suñu fierte yëmbal lañ dëkk waaw te deretu yëmbal mooy daw fii nii. te moom tamit seetlu naa ne fu mu dem day fësal yëmbal noonu la nit ki tamit foo nekk ak foo mënti dem da war a fësal sa dëkkuwaay parce que ñun amuñu lu dul fii bu ñu demee ba ay millions millions millions fii lañ koy def mooy loolu. parce que tamit xéwal lii ñuy def nii defuñu si dara lu dul jaamu yàlla barkeelu yi nii di si jaamu yàlla kese lañ ci wut utuñu si leneen 100 francs 100 francs yi ñu gars di jox fii la jëm utuñu si leneen waaw di ko ñaanal nag moom tamit li mu at li mu dëtmal yàlla may ko ko yàlla ubbil ko xéwal yaa ma gën a xam li muy def si kafe gi chaque jour muy gën di yokk di gën di yokk loolu lañ koy ñaanal merci gars yi. waaw sama gars yi ah kii mooy koo koo xam-xam ma bu may jëlee avance moom la àndal su may bëri ñoom la àndal su ma lépp la daal maa mu benn lañ dara mënuñoo tàqali xam nga moom lañ jox kàddu mu muy jo ñu xool moom ba moom lu mu xam ci Bébé Diwane ak tamit préparation combat bi ñëw nan lay demee ak li kanam daal yaa ma gën ak palmarès am lu mu si xam. salaamaaleykum maa ngi leen di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay caméraman maa lay big up diwaan moom dañuy sawar a wax si moom ndax depuis mbabat ba léegi ñoo koy yóbbu muy mbapat yi ñoo koy yóbbu muy arène bi ñoo koy yóbbu fépp waaw amul benn problème kuul booy suñu kuul rakk la te am na koñ bi ñëpp jàmm ñun ñii di ko xam nañ si dara te am na Pastef am na taalibe waaw alal du ko doomu aadama yëfam du ko doomu aadama waaw diwaan daal lu ñu mën a wax si moom daal bëri na quoi te tamit làmb ji dañoo bëgg ñu waaj ko waaj bu baax a baax gars yi jàpp daan ndax dañoo sonn si làmb ji làmb dañ see war a lekk ay millions mbëri dañoo yàgg daw mu jógee yaakaar ne diwaan cuune la diwaan champion moo tax mbëri ñemewuñu ko te làmb ji dafa war a tegu suñu loxo dañoo sonn si làmb làmb dañ see war a lekk ay millions ñu dañoo war a dawal si ndaamaar yi mool yi ak si teemas yi ak si zet yi te diwaan yi mooñ ko war a andil waaw incha allah loolu lañ bëgg quoi. waaw ñu ngi baax a baax ah. defee ñu ñëw ci Massamba ci may Massamba moom ñoo foowandoo ñoo dalaan bi nekkee xale ba tey moom sam morom la quoi ñoo foowandoo ñoo defandoo lépp depuis boobu ba tey tam bàyyiwul quoi xam nga maa moom mbapat ba nii may waxee nii seen kër laa njëkk ngemb premier combat mbapat bi ma njëkk a bëre bi ma sunu waa kër tere bëre naa ma doo leen bëre gi seen kër laa ngemb laa defee lépp xam nga di ko bëggee moom quoi di ko siyaar bu baax a baax aja ma samba loo xam si bébé diwaan ak préparation combat ak préparation loo si xam waaw dëgg la diwaan moom wax dëgg fa yàlla moom na ne di ba nekkee ba xale ba nekkee moom xam nga ñoo ànd quoi wax dëgg fa yàlla moom amaana la tamit amaana xam nga rek nit ñi moom parce que moo garaaw quoi làmb moo tërëri wax dëgg fa yàlla moom parce que ni nga gisee ni champion la nekkul tey amaana xam nga rek yal na yàlla xam nga ma li si kanam rawee bët quoi rabbi ak suñu combat waaw si barke weeru koor gi tamit ak weeru koor gi tam xam nga weeru koor gi tam mu si def sax acte bu rafet mu ngi jël ay mburu xam nga di ko jox nit ñi di ko dugal si kër yi xam nga loolu noonu rek yoon la wax dëgg fa yàlla yal na yàlla jàppale ko waa jàppale mboolum jullit waaw si barke weeru koor gi jërëjëf champion la Bébé Diwane wax dëgg fa yàlla koy ma samba ba ci waaw ñu ñëw suñu gannaaw bi as as a ngi nii ñëw si as téléphone bi mooy suñu gannaaw moo ne ci koñ bi xam nga wax dëgg fa na xel bi ñëwee si koñ ba tey rëccuwuñ ko ñëwee si ba tey gis nañ koñ bi naagis na booy tege nañ ci yoon ama amatul dara loo xamante ne nii daal ñu ngi koy jooy si koñ ama day defar lépp waaw après tamit sama fan si club bi daanaka moom mooy si président mooy def lépp kenn moom daal daal ñu ngi ko jox micro bi daal wax lu mu xam si bëri diwaan ak yooyu noonu yaa ma waaw salaamaaleykum sa waay maa ngi leen nuyu di la ziar di la di la jaajëfal ci weeru koor gi ñu ngi ñaan lépp luñ lu ci waay woor rek yàlla nag suñu borom nangu si barke Seydina Mohamed waaw tey da ñëw da ñëw fi nga war a ñëw quoi muy sunu mbër sunu mbër sunu rax jaral nañ lu ne surtout man ki nga moom moo ma jàppee mag de waaye man jàppee ma ko rax dama ko jàppee morom ndax euh, rax boo xamante ne nii su tegoo ci yoon moom kooku day da ngay sawar ànd ak moom waaw ñu ngi ko si gën a encouragé nag nag di ko ñaanal yàlla ci combat mu jëm nii suñu borom dafa ci ndam bu sedd guy waaw ndam ndam bu taw féexee incha allah ñun daal amuñu kenn ku dul moom dëgg la koñ bi la juddoo fi la yoroo nam meloon ba muy xale boobu ba léegi moom la continuer ñu ngi am ci moom contenté bu baax a baax a baax waaw moom daal ñu ngi koy ñu ngi koy ñun daal ñu ngi ñu ngi mooy suñu champion daal mooy suñu Modou Lo suñu Balla Gaye mooy suñu leneen leneen te incha allah ñooñu tànk bu ñu fu ñu taxaw moom dina dem ba romb foofu incha allah fii dégg mbër yi mag yooyu noonu incha allah ñu ngi koy ñaanal mu dem moom rek ngay dégg ci média yeg tout Bébé Diwane Bébé Diwane Bébé Diwane daal am na loo xamante ni daal loolu daal loolu daal lañ ci lañ ci mën a wax daal ndax moom kuy wax ci moom euh, waaw kuy wax ci moom heure ndox day heure ndox dalay day day day wees te loolu la quoi waaw ñu ngi koy sant ko gërëm nag tamit ñu ngi lay jaajëfal baax sa oyof yow tamit di ñaan yàlla tamit ci kanam tuuti yeneen télé yu bëri ñëw fi rajo yu bëri ñëw fi incha allah jaajëf ok kooku mooy as ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax mooy grand frère du Kandji moom mooy loolu yaa ma gën a xam waaw kii mooy Momo quoi mooy Modou sama rakk la su may bëree da ngay jaral lu ne wax dëgg naa ñoo bokk benn papa papa moom jàngal métier waaw kenn moom daal li nga wax lu moom lu mu xam si bébé diwaan ak nan lay pere ak nan lay waajo combat bi ak lu mu xam si palmarès. waaw ah, asalaamaaleykum di nuyu di leen sant. waaw ah, yéen mbokk téléspectateurs yi yow grand yow mi ñëw fii def sa déplacement ñëw fii seet suñ suñu mbër suñu champion diwaan jaral ñu lépp nag waaw ah, suñu grand frère la suñu xarit la suñu lépp la di ko ñaanal rek mu gën a jëm kanam waaw ah, diwaan moom amuñu amuñu du ñuy wax ci moom daal mooy loolu quoi dañuy dañuy kontaan ba du ñu mën a wax ci moom lu bëri waaw suñu champion la suñu suñu lépp la waaw yàgg na fi nekk mbër waaw ñu koy supporter. buy bëre ñëppay sonn xale yeeg mag yeeg ñëw ñëpp ñëppay sonn waaw grand combat bi mu jëm nag ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ci ndam ndam lu rëy a rëy mu nekk ndamu caare kaw yëpp ndaw ndaw nekk ndamu ñëpp waaw mooy diwaanu ñëpp waaw ñu ngi koy sant daal di ko gërëm daal moom daal ñun ñun daal mënuñoo wax ci moom lu bëri quoi parce que ñun mooy loolu diwaan dafa dafa sori si ñun suñu grand la suñu lépp la waaw foofu lañ daal kàddu yi daal. waaw bu ko defee ñu ñëw ci ki moy Modou ki mooy Modou Manga mooy Modou Manga bu demee ba bëgg làmb moom ci seenu ci rôle quoi wax dëgg fa neex yàlla parce que moom moom lan daan ñëw fekk muy bëri <laughs> moom daanaka dañ ko fekk ci làmb daana bëri mbapat daana def lépp des fois dam naa dem tournoi di bëri ñoo fekk foofu muy bëri moom kasa da du ànd ak bu ma génne dem bëri si lit simple c'est la première fois moom laa mës a dem seen dëkk bëri ji dem bëri ji foofu yàlla suturaal ñu yem ba final ñàkk beneen bi si tamit ñoom seen groupe bi xëy na yàlla da leen fay fekku rek dañoo dañoo dem dóori quoi dañ fay nekkul mais ñoom ñoo daan def bu ñu liggéey ba wàcc yëkkati kenn gën a deux cent deux cent dagaloo ko ba mat mille dem jënd ma si reer indil ma ko dem jënd ma hamburger wala jënd ma leen loolu du ma ko mës ñoom seen gang bi la ñoo daan def loolu ama leen delloo njugal baax a baax di laaj tam loo xam si bébé diwaan ak préparation combat bi di ñoo tam ak palmarès li ñu si xam ko defee ñu ngi lay jox kàddu gi rek waaw. salaamaaleykum Bébé maa ngi lay bëggee yow moom amuñu dara lu ñuy wax si yow amuñu dara lu ñuy wax si yow depuis Mbapat ba tey ku xamul dégg nga ko bi sax ñun waneeguñ suñu bopp ba tey Bébé Diwane dese na dese na lu bëri si arène bi xam rek arène arène day suul ndaanaan mais kii nii mbër kaamil la dafa ñëw fekk ma ba dëkk bu ñu naan fu ñuñ koo xamul dégg ay mbër kaamil ñoo fa nekk. foo xam ne heure bu fa Reug Reug duggee dañu ay ndaanaan yu bëri ñoo fa nekk dafa dem ba foofu ma yóbbu ko sig mu sigil ma fu ma romb dañ may dama may succès foofu dama may succès foofu kii nii mbër mbër bu mag la ñu amee lu ñu wax si dañ koy xeeb depuis mbapat ba tay depuis mbapat ba tay ci est ce que mbapat ñu mus nañ mus nañ ko yóbbu ba mu daanu sax man man musuma kaa fàttaliku man billaay wala ak koor gi may koor billaay wala ak mandial bii man musuma gis ñu amee gàllankoor man fekkee moo ko kii moom lu ñu mun di wax si moom rek mooy loolu mbër mbër kaamil la combat bi di ñëw nag comme yeneen combat lañ koy préparé rawatina bii di ñëw nag bii di ñëw moom waaw spécial combat la donc waaw waaw dinañ yóbbu mbooloo bu ñu yóbbu woon bu ko ëpp la ñu yóbbuwaat defaat mouvement bu rëy waaw ñu xam ne ñun diwaan diwaan moo ñu ko jaral waaw mbër bu baax la mbër bu waaw kenn gënu ko champion ngi nii billaahi mais lu si kanam rek lu bët ñoo lay jaajëfal lu bëree bëree bëree bëree bëri wër na yàlla. waaw yow noonu lay demee gars yi noonu. yeneen gars yi dañoo dóori xam nga banlieue moom yaa ma gën a am ay nit yu jom fi am am na heure boo xam ne nii gars yaa ma gën a am bu ñu wàccagul ak waaw bëggee gars yi baax a baax ñi daal sama gars lañ samay lépp lañ kenn du ñoom mention spéciale la dëgg fa na yàlla lu ne dañ nañ ko ci man foo xalaat fu ne rek loo xalaat lu ne dañ nañ ko ci man mu amee combat bu ne suuf la combat bi. borom dëkk bi ngay waxal de bébé diwaan l'avance séeréer day yëmbal ah. Mbëru Amadou Hott bi. maram ot kenn moom waaw ah, dafa leer bilaay yow mais di leen bëggee bu baax a baax ñoom tamit ah di bëggee ministre bu baax a baax baax a baax di ko jox wàccuwaay bu baax ak madame Ott xam di leen sant di leen gërëm ak Mariama Ndiaye ak Iba Malick Ba xam nga ña fa nekk ñëpp daal di leen gis nañ gis nañ jàppale bu baax a baax a baax gis nañ jàppale bu baax te ñu ñu ngi jëm si waat si beneen grand combat aussi tam bëgg nañ jàppale bi ñu jàppale nga defaat tamit nga fu nga dooroon daal nga dooraat foofu waaw bëggee baaragay tam bu baax monsieur le maire sama waay la sama lépp la waaw kooku tam di ñaanal yàlla na fi yàlla yàlla na yàlla guddal fanam daal yàlla na yàlla guddal fanam li mu bëgg ci politique am yàlla na ko si yàlla defal daal waaw ci biir gars baax waaw. non combat amagul dat dat ñu ngi toog di xaar promoteur bi rek parce que xam naa ne yàggatul dara xam naa fan yii rek new rek ñu jox ñu dat. Hmm. non la sandeer moom comme fi ñu yeneen mbër lañ koy jaarale rek. moom moom wax dëgg fa neex yàlla ndaanaan la mën na bare mais ah damay ragal doole xale ak mag bokkul yam de ah non Lasandeer man bi muy Lasandeer bi muy bi muy bëri amaguma licence Lasandeer bi muy bëri amaguma licence non bokkuñu amagu ku yaroo si keppaar ku yaroo si man parce que fii ay mbër fi nekkoon ku ñu xam ne ñun xamee ñu ak bébé Saloum ku ñu xam-xam ak diwaan. ku ñuy xam xamee ñu ak Mame Balla ñooy seen keppaar lañ yaroo. ak ak Balla Beye euh, numéro 1 Balla Beye fi la vraiment waaw ak euh, Marley Omar Saliou naa la wax fii lu garaaw loo musul yëg loo musul dégg euh, làmb ji ba làmb ji daj man benn idole la am ci làmb te musu xam te musu ma ko wax te musu ko yëg muy Marley 2 kooku laa xam ne kii moo ma dàq bëre te li muy def am na ci fula te mën na ko kooku rek moo ma jaraam ma koy roy ci làmb ndax dama ko bëgg man te xool ma si dara wax dëgg fa na yàlla sama waay la sama lépp la mais dama ko bëgg ndax dafa mën a bëre ndaa naan ku li fat mooy maar lay ama di ko ñaana moom tamit yàlla ko yàlla may ndaa eh, lamb làmb ju baax a baax lamb ju baax si moom sax dama am ci ndam bëgg sama doomu ndey tamit eh, Pape Thiam yàlla ko yàlla defal jàmm moom it répar am na combat quoi répar am na combat si yàlla may ndam moom it beneen bëgg baax non non Lassane man li ma koy dénk moom bariwul moom non leer laa ko man wax naa ko li ay mag bu la jiitoo ci néeg bi lëndëm ak ay lii ak lee mën na ko saway yooyu nga teg noonu moo amul bu fekkee mag bi fa mu tagee fu mu toogee baaxul xam nga ku la jiitu ci néeg bi lëndëm moo leen fi nga tooge mais moom fi mu toogee si néeg bi moo baaxul fi mu toogee si néeg bi moo baaxul combat bi suma premier grand combat la waseet loo yëmbal ñi a def ñi fi mës a génn seen premier bari dañ ko ñàkk te maa war a ñëw incha allah bu neexee yàlla ko fa war a dindi am set wecc aw ma ci sa ay demal maa ngi ñëw amul dara lu ma kay xaar wala amul dara lu ma koy may ci làmb ji xaaru ma ko mayu ma ko ñaanu ma ko dénku ma ko li moom moom dama koy jël si far fos di moom moomee tee parce que maanaam yow ma nit ñi yab yab di yoo xamante ne nii du ma dagale mbooloo moo am ne nii centaine de person ñëw di laam-laame wala ma nekkuma ci yooyu moom lu mu waaj doyul bu mu ko fekkee dina xam léppay dëgg du man ak moom xëy na dañ fa war a dem seet leneen rek. foxos joxos. mais bi nga ko jàppee dina xam léppay dëgg. Ah, non non bàyyi jëli der la non bàyyi jëli moom der la kooku amul dara lay wax ak moom bëggee bébé Saloum baax a baax a baax sam papa la sama lépp la waaw non man li ma koy dafa leer man mafia bi topp sama ginnaaw dafa bari mafia bi topp sama ginnaaw a la mafia ak lu vëb bi mi ngi si ba tey ama sama station waa Azam ñu ngi fi waa Noobaaf ñu ngi fi xam nga daal waaw ci tamit ñu fi ma nday José bi di bëgg nday José bu baax sama xarit sama lépp ay jeene ba borom ragalu loolu xam nga seen ma woo tamit mooy loolu daal ay fanta tubaab bàyyiwuma kenn daal lamb gi daal mi ngi noonu daal man daal aw ma dara loo xam ne lu ma siy sikki saakal la waaw. sama supporteur bu baax a di bëggee waa Noobaaf ñoom Dramé Moussa Ndiaye Ibou Guèye xam nga son yeeg boobu bàyyiwuma kenn ñoom dañuy sonn ci man te nit bi sonn ci yow da ngaa war a sonn ci moom xam nga di bëggee sama benn doomu ndey Bamba moom tam bu baax a baax a baax a baax kenn du parce que man daal mooy li ma lay wax rek man koñ bi la am aw feneen fu dul fii aw ma feneen fu dul fii leen gërëm ñoom ñëpp di leen wos combat bu baax a baax di woo waa naataange waa naataange kenn du ñoom ñoom laa gis sel AIC boo xam te ne su open de presse ñoom mën nañ fee indi simal boo xam te ne doo sa doo doo ko sa yaakaaree waa naataange waa naataange di leen bége bu baax a baax bi Diop ngal Matar Camara bàyyi ma kenn daal ay Matar xam nga déranger bàyyi ma kenn daal ñoom ñëpp di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay amee daal mi ngi noonu waa yëmbal mbër mi seen mbër la waa caaroy mbër mi seen mbër la bu ma ndam yéen la su la leen ñëwee yéen la di leen woo si bu baax a baax a baax a baax ñoom yéen ñëpp maa ngi leen woo si combat bi si kiiwuñu si kenn daal génnewuñ si kenn dañ bëggee ñëpp ngeen ñëw dugal seen loxo waaw di nuyu maram bu baax a baax a baax a baax leen sant bu baax waaw. Omar Sall yow tam di la jox sa waaj waaye kenn du yow xam nga yow moom borom baax nga wax dëgg fa na yàlla dañuy déggante lu bari nga may conseil tamit xam nga dëgg la maa la mag mais des fois nga jox may conseil xam te ne naan booy bi maanaam dañ ko soxla yàpp mag wala nu mu demee noonu mais daal di la wax ne la macha allah daal xam maa ngi gis nag mbëri nekk si internet bi di ma tëkku mais du ma leen liggéeyante sax dama leen leen yoon baa ngi noonu ku mën demal na damaa xuus baag si fii. non ñoom non ñoom bëgg a bëre bëgg a bëgg a man moo tax ñuy wax loolu mais man ku xam Bébé Diwane xam ni premier combat ba treizième combat bii mu jëm si nii ay combat yu métti la. musuma bëre combat boo xam ne dama na ma kii def fi dara saa yu ma damay bëree bëree bëree bëri bay bëgg a dee sant sunu waa écrit bu baax Père Djili ñun man boog maa ngi doog am ménager waa Géejawaay boog ñu ngi doog am ménager Père Gilles du ko jox wàccu am bu baax kooku amul dara lu muy nëbb su bu la bu waroon wax dara tey da la koy wax te sa xaalis sa mu la war a jox soxla wu ci dërëm soxla wu ci dara bi nga dem paare prési président écrit paare parce que combat yi ma bëri moom ma ko jox moom kenn du moom paare di ko sant bu baax ñambaandam di nga ñaanal combat bi mu jëm si yàlla na si yàlla may ndam ak Kéjop waaw mbaytin tamit sama doomu nday xam nga damay am combat mu sonn ci bu baax a baax a baax a baax kooku moom mention spéciale quoi mbaytin kenn moom di ko jox wàcci waay bu baax di gërëm tam suñu benn ganaar bu naan njox tabaski bi di ñëw yàlla na weer gerees yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na am xar moom ray ba mën see weer gerees <laughs> yàlla na yàlla jàpp waaw di bëgg waa yëmbal gi yëpp ak waa caare ko waaw di gërëm teekaay waa cosaan ah waa cosaan tamit di leen waa njaayeen ñoom Pape Diop suñu bi Ahmed Diop xam nga bàyyi ma kenn daal Mamour Mamour Ndiaye Mamour Fall Xaarim Gueye bàyyi ma kenn As Diouf Soda Issa bàyyi ma kenn daal waa koñ bi di leen sant di leen gërëm maa ngi bëgg gaa yëpp salaam. waaw ah, beneen bi may dollaat di sant suñu waa koñ bu baax a baax suñu waa kër waa Ngayeen di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax parce que ñoom tamit lépp ñoom la ak waa Ñaseen lépp lépp lépp ñoom la xam nga dama am combat bu fa waa kër bu fa samay booy duggee keneen duñ kaasu def dara te xam naa ne booy dañuy triplé dañuy def lu ne. di leen jox seen waajuwaay bu baax a baax di nuyu koñ bi ma nekk nii tamit suñu chef de quartier bi di ko nuyu baax a baax a baax a baax sama xarit sama lépp la. mais tamit ñu ngi woo tamit Amadoot ñu ngi koy woowaat si combat bu baax baaxa baax a baax Amadoot mu si jàpp doyul Mariama li mu jàpp doyul di woo sama benn grand tamit euh, góora Gora mi ngi nekk euh, mbedd Fass mi ngi ubbi benn fas food bu naan kaay ñam di woo waa mbedd Fass yëpp nañ dem foofu di reeree foofu parce que kaay ñam la fa dóor te ñam boo ñëwee boo ñamee da ngay dolli keroog ndogu la ma jox gratuite di nga ñaanal tamit mbégte daal ak soxnaam góor a di wax ne sa fasu boobu daal li nga si bëgg yàlla na yàlla defal xam kaa kaay ñam gis na résultat yi gis na li muy gis na li muy génne gis na lépp daal ndogu yi baax a baax lay génne xam nga di bëggee sama gaay yëpp di doon jox seen wàccuwaay wasalaam